لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أصنع احترام جادلنا باك تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكر عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بيزام تبت لربي ظائرا بذنب ظاهرا بذا النظام لك وخبله عبوت ميزام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله ñaan yàlla nee mi ngi ñaan yàlla nga yàgg fi nga yàgg fi naa yi yëkkatil cheikhul xadim naal yii nga yëkkatil cheikhul xadim nga eggale ko ak ñun nga àggale ko ak ñëpp sëriñ bi nee sëriñ bi am na ñaari at ci ginnaaw nee na am na ñaari at ci ginnaaw bi réew mi yëngoo bi réew mi yëngoo da waxoon ne da waxoon ne na ñëpp toog te dal na ñëpp toog te dal te déglu musuma jóg ca loolu moom mii mësta jog ci loolu ma jàng ne jàng na baytu cheikhul xadim nazaxtu bi sukri shikaayatan nazaxtu bi sukri shikaayatan muy wax ne mu wax ne lépp luy jàmbat lépp luy jàmbat jëndee na ko cant na ko cant cant googu ne cant googi moom la woo tey jii moom la wootee tey jii ci digganteem moom ak boromam ci digganteem moom ak boromam ak soppeem ak soppeem ba sallallahu alayhi wa sëriñ bi sëriñ bi sëriñ mu Serigne Moustahine Mbacké nee nga nga ñu sax nu da gàttal kaddu yi nee mi ngi jéggalu sax kaddu yi mu jékkati waaye yéene rek moo tax mu yëkkati ko nee mi ngi lay wax ne Mbacké foofu sax lay daanelee nee yéene bi ma am ci Touba def ko ci benn vidéo nee bërki démb sax bind na bataaxal. ministre bi yor wàllu ndox mi. ministre bi yor wàllu ndox mi. di ko wax ni di ko wax ni. ndox mi di taa Touba. ndox mi taa Touba. ni ngeen ko war a saafara. ni ñu ko war a saafara. bu leen jàppee bu nu jàppee ne. bu ñu war a saafara ci dëkk. bu ñu ñu war a saafara ci beneen dëkk. noonu la war a saafara ndox mi fii. noonu la war a saafara ndox mi fii ci Touba. ndax yàlla ñu xamal. inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albab signe yooyu mu ñu yónnee. nee signe yooyu mu ñu yónnee. muy mooy wane ni. mooy wane ni. ginnaaw ban bi nekk ci suuf. ginnaaw ban bi nekk ci suuf. war nañu. wan nañu ñu fexe gën a gëstu. ñu fexe gën a gëstu. lan moo laxasu. lan moo laxasu. ci ban boobu. ci ban boobu nekk ci suuf. nekk ci suuf ba ndox mi. ba ndox mi mënta yegg ci suuf. ba mënta yegg ci suuf. moo solution bi ma ci amoon. nee na na moom xalaat bi mu ci amoon. mooy ñu fexe récupérer ndox bi. ñu fe jot ndox moomu. def ko ci ay mbànd. def ko ci ay mbànd. Touba ñaari siècle moo fi am mooy bii ñu toogee. Touba bi bii ñu toogee moo fi am. Sancaan ak Sancaan. ak ay suuf yu bari yu ko wër. ak suuf yu bëri yu ko wër. te ndox moom yi bi ñu yónnee fii Touba. te demut ci biir te demut ci biir. am na luñ ci yàlla bëgg woon. am na luñ ci yàlla bëgg woon. mooy mbay. mooy mbay. mi war a dëgër. mi war a dëgër. war a dundal réew mi. war a dundal réew mi. bàyyi ko. bàyyi ko ci diggante. ci diggante. yonent bu tedd bi. yonent bu tedd bi ak Cheikhul Xadim ndax suñu xoolee. ndax suñu xoolee. nasaani min al wara al baaxil xadiim. nasaani min al wara al baaxil xadiim. allamahum bi annani abdul xadiim. allamani bi annani abdul xadiim. loolu le. nee na loolu yi. boo ko jàngatee ba ci biir. boo ko jàngatee ba ci biir. mooy solution bi ñu bëgg ci suñu réew. xalaat bi ñu bëgg ci réew mi. tànk ñëwuñu. tànk ñëwuñu. gëstu bu baax. gëstu bu baax. li ñu Seexul Xadiim jàngal. li ñu Serigne Touba jàngal. dana jafe ci ñun. dana jafe ci ñun. foofu lay ne fa lay gàttalee Mbàkke ne mi ngi ñaan yàlla nag fi muy daanele mooy aéroport bi mu am yéene. aéroport bi mu am yéene. defoon ko nag ci benn maquette. defoon ko ci maquette. def ko ci vidéo def ko ci vidéo. muy aéroport Cheikhul Khadim muy aéroport Cheikhul Khadim. ak musée bu mag bi nga xamante ne. ak musée bu mag bi nga xam ne. musée Cheikhul Khadim la. musée Cheikhul la. minaret ba ca nekk. ne minaret ba ca nekk. deux cent dix mètres la moo gën a gudd ci àddina bi. cent dix mètres la moo gën gudd ci àddina bi. boole woon nañ ko ci projet ba. ne boole na ko ci projet am. rafet te lépp lu rafet lépp lu baax lépp lu baax lépp lu yiw lépp lu yiw lépp lu tedd lépp lu tedd Cheikhul Khadim moo ko Serigne Touba rek ko jago benn physicien ne benn physicien belge belge dafa wax ne dafa wax ni li ko gën a neex na nee na li ko gën neex mooy Cheikhul Khadim nee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul yàgg ci buntu yàlla bi yàgg na ci buntu yàlla di waxanteeg gën gi mindeef di waxanteeg gën gi mindeef te mësta fëgg te mësta fëgg te ñeneen ñi fi ñëpp nee yeneen ñi fi jaar ñëpp dañoo fëgg fëgg ba sonn fëgg fëgg ba sonn dal googu mu àndaloon dal googu mu àndaloon moo ko yéem alxaqu min rabbikum alxaqu min rabbikum faman shaa fal yu'min faman shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wa man shaa fal yakfur wasalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf xanaa sant la rek ne dégg na kàddu yi bu baax a baax ne mi ngi la ci sant di la ci gërëm ne wane nga sa bopp digganteem Seexul Xadim ne lool nag wala na ñaar seen diggante ne dana ko fas yéene sàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf na ñëpp tàll. Mbàkke tarixa yi bég nañ Mbàkke ñëpp bég nañ noo ngi ñaan nga yàgg fi sa toogaay bii toogaayu sëñ Basiru ba la toogaayu njabootu sëñ Tuubaa gi سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام في مكاننا والسلام في مكانتنا والسلام على عباد الله الصالحين والسلام على المرسلين والحمد لله